waaw waaw jërëjëf jërëjëf mbooloo mi sama xarit sama serinya, serinya Ablaye gay avant may dugg ci politique bi xamante bu baax baax diko sante diko gëreum ak aussi serigne Muniru mu don sama xarit di ma yag top bala may tamuli damay nuy wa jaxaw yep ma ngi nuy aussi mon frère ci ekuyate ak Alir lay wax di nuyu ma sœur mère Assou Guissé mun naa wax tey yàlla bu defee lii tey moom si moom la ko jaarale di nuyu aussi mon frère nga xam ne mun naa wax moom mooy Baye Fall mouvement bi mooy Ali Mbaye di nuyu ñu fi nekk teewee yëpp mbokk yi vraiment lii tey wane na ñun nag dañu jóg di liggéey ngir askan bi li liggéey suñu gox dama bugg a naxe mbaay dafa jeex mbokk yi ñun dañu jóg pour jàppale son excellence le président Macky Sall ñu xaaruñu d'abord président def effort mais ñun dañu jox fekk si ko parce que ay gor nañu ñi jël suñuy siège dëkk bi jaxaaw biir màggee bi jaxaaw xam les problèmes de jaxaaw moo tax ma ne ko mon frère Thiey ma ne juumoo de lu tax nga ànd Habib bi nga xam ne ay gor nga àndal ñun lu ñu yitteel mooy

si loolu kon dañu wax ni ne weddu gisul ñun li may wax rek moom frère Thié ñun amuñu habitude di wax dañu jëf léegi léegi rek gis ngeen ko léegi keroog bu ñu njëkk a def suñu premier lancement li ma njëkk a def mooy dama may 204 mutuelle de santé jaxal ko joxe et puis yamul y fani di sa une formation en leadership en sérigraphie et en solaire Moi, c'est Ali suis allé na mon frère former jeunesse je yi. si aussi mon frère li ñu wax accompagner les femmes parce que je pense que même commencer nañ ko si une formation savon eau bi. am na fii ay association des femmes yi fi nekk encadré nañ leen ba actuellement di ngi demal seen bopp parce que bés bu nekk ñun nga koy may ni nga koy may jën da nga koy jàng nu ñu nappee jën donc mbokk yi li may wax ñun politique de développement nañu def politique concrète nañu def comme son excellence le président Macky Sall ni mu ko waxee li may wax toujours le président bul tontu bul tontu yoo jëfal rek ñun nag li mooy suñu avocat mooy jëf moo la keroog maa ngi toog di ree kenn ki xam ne maanaam c'est un frère mu ne mouvement ànd soxla Thiès mu ngi doog a juddu xale la ma ne kon xale boobu mais xale bu xam ne mu ngi doog a juddu mais dafa jóg di xale bi raamul mbokk yi ñun xam nañu les problèmes Thiès waay yi on est des gens sérieux des gens qui ont ne duñ ñu añuti intérêt nous jóg ñu askan bi moo tax keroog du ma fàtte je suis wax toujours là. waxti président Kérok, bi muy inauguré AIBD fii laa koy tax di ko devant tout le monde Je suis ko président je suis le président ko na nga xam ne AIBD doomu Thiès la Thiès waa dina si wér président si mu ngi bàyyi xel bu baax Thiès xam naa du yàgg ci lool mbokk yi di ngeen dégg ay nouvelles yu baax si wàllu emploi Thiès waay li may ñaan rek mooy képp ku xam nga jege nga président nga jëkk Thiès boo toogee président na ko li nga xam ne moom la Thiès di dox lii nga xam ne maanaam moom la Thiès soxle parce que président Thiès moo ko ñor saa yu même du toogee conseil ministre am na ñenn ñu xam ne duñu la bàyyi fan dee leen di wax ay à Thiès quest passe là-bas ba xale yi kontaan nañu ba mag yi kontaan nañu te def nañ ko biir jaxaaw mooy ministère de santé bi tey mais président moo ko tàmbali amul kenn ma ko fi indi c'est le président Macky Sall fii ko indi donc président mu ngi liggéey en tout cas ñun mouvement ànd soxla Thiès à allure tey fedd nañ suñu colère mbokk dinañu liggéey incha allah si liggéey sincérité si liggéey dëgg pour lan pour Thiès jëm kanam

si loolu la ñu dox moo tax incha allah rabbi si wàllu formation yi si wàllu jeunesse bi si wàllu magir du leen fàtte li may ñaan rek mooy mbokk yi incha allah li may wax mon frère Thiey on sera toujours ensemble xanaa politique du ñu boole de am na leneen lu ñu boole lu politique li may ñaan rek mooy balaa may tàmbali rek damay nuyu ñii nga xam ne ñooy responsable politique Thiessois yi nañu nañu xoox problème Thiessois yi ñu bañ a wax seen problème bopp. parce que Thiès moo ñu ñor képp ku xam ne ku ñu fol da nga am ginnaaw en tout cas moo frère Thiès di nga xam ne ay gor nga seqal ak ñit nga seqal comme ni ko toujours ñi di waxee ku la dig ndekke jox la añ bu la diggee reen nga gëm ko ñun si loolu la ñuy dox mon frère. Inshallah, dinañu japp jepp lu ñu def dañ si waxtaan askan bi dañ soxta askan bi barki rek di formation à leadership di lan di former ñi suñu de bureau pour toujours le mouvement entre et le mouvement on veut être des gens plus proches de la population ñi nga am nga am ñoo seet la en tout cas lii moom fa kontaan naa si lool li may ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla taxawal yàlla jàppale ñu lii nga xam ne maanaam moom uns président jëm kanam li may ñaan aussi pour la jeunesse mooy ñun leen di ñaan mooy ngeen dem retiré seen carte képp ku xam amul carte d'identité na nga fexe taxaw boo ñëwee mouvement ànd soxla pièce mi ngi mi ngi ñaan temps yi audience forêt pour ñi nga carte d'identité li may ñaan mbokk yi nañu xeexandoo dóorandoo président am ndam au premier tour en 2019 loolu laa bëgg. auzu billaahi bismillaahi rahmaani ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonentem bu tedd bi di gërëm suñu ñaari wayjur di gërëm suñu wayjur bu góor bu wéer a wéer ndax tey mën naa wax ni natt bi dal ñu muy politique ginnaaw yàlla moom la lëg nag boo lekkee olom da koy gërëme coy maa ngi ñaanal suma baay boobu yàlla na ko yàlla xare ak jàmm maa ngi nuyu képp koo xam ne teew na di gërëm suma ay dëkkandoo di gërëm suma ay xarit di gërëm ay délégation yi nga xam ne jóge nañu fu ne ah, mënuma ñàkk tudd ay tuur naam dégg naa olof naan kulim da ngay juum waaye man damay naan déet kulim da desal dafa am ñoo xam ni dañu particulier ci man euh, aw fay maa ngi lay gërëm bu wér a wér gis naa sa taxawaay yàlla na la yàlla fay xali euh, ndong bi suma jarbaat maa ngi koy gërëm bu wér a wér euh, ak ñi mu àndal ñëpp maa ngi leen di gërëm sama xol dafa sedd ci ñoom parce que bis bi dañ ko jël defal ko seen bopp ñoo ma yeer fi ma doon fi ma doon nelawee di gërëm aussi waa Aiglon maa leen di gërëm bu baax a baax di gërëm ñi nga xam ne ñoom laa dëkkal di gërëm su mag samay mbokk bopp di gërëm su may di tàmbali ci ki ci gën a ndaw ba ki ci mag di gërëm dekk ndoy di leen balu ak bu wéré wér dama né bo dé wax di tuddu ay tu da ngay déssal mais dafa am ñu lo xamni ni kenn eh, mëna ko koo baña wax ndax dama yaakaar ni soxlu wul bu xonté ñun dañ di ay jeunes am ñu dudul jaxaw dama dégg légui suma sœur di wax benn mbir yalla suñu borom lepp lu xew fekk yàlla nañu yàlla lafal cat yàlla defar ñu jàmm ngërëm li mënagul jeex parce que damaa am koo xam ni suma sëriñ la suma xarit la suma mag la muy Cheikh Ablaye Gueye kooku bu ma dee tàmbal ci moom duma mën a jeexal parce que lépp lu yàgg dëgg la xam nga dëkk dafa jafe dëkk dafa jafe ablaay bi ñu dëkkee ëpp na juróom fukki at mosuma kaa dégg ci naka suñu lool géey fi nga jàpp foofu la yow tu es yow jàppale ku ne exemple nga dans ce quartier la yàlla jàppale di nuyu suma frère muy sëñ Ndigal sëñ Boubacar suma rakk la suma sëriñ la suma xarit la ndigal maam xaas yàlla na ko yàlla fay tey comité Mandeng bi nga xam ne dañ fay ñëw samay mbokk bopp lañu parce que képp ku naan Inco man dama caa bokk kon comité boobu man ca laa bokk te dama yaakaar ni euh, lépp lu tax ci nit bopp bi ba ca tànk ya ca la bokk kon tey fi tey dañuy ñëw sànq man leen dinaa leen wax lu ma waxul kenn parce que ñu ñoo bokk li ñu bokk kenn mënuñoo tàqale Astou dafa am loo xam ni mënuma ko ñàkk a bañ wax parce que ragal péete dafay xañ a wërsëg bu ma nuyoo pa pagay ba pare sant ko gërëm ko parce que bàyyi la ci ki nga xam ni dafa ma magoo ma rakkoo ko ba pare def ko responsable je renommé mon ami et mon frère Habib Niang mënuma ñàkk aussi wax ci li ma wax léegi dama ne ragal péete dafay xajo wërsëg man la may def dama ko gëm di ko def awma benn obstacle suma kanam gisuma kenn loolu président Macky Sall pourquoi ma wax loolu

suma mag la suma xarit la suma wëllëre la dañoo seq lu bari man nañ koo défendre pourquoi parce que dañu nekk ci pays boo xam ne boo laajee ñu fàtte la mais il mérite il mérite beaucoup yàlla na ko yàlla fay xolam il a beaucoup fait Habib je te dis que nii c'est un grand boo xam ni dama koy wax ñëpp di ko dégg man ak yow sa tànk ak suma tànk ba moom ñu dem waxtaan ak moom fas yéene ànd ak moom liggéey parce que ñun dara ñoruñu loolu président Macky Sall mouvement Alir bi nga xam ni tey man moom lay diriger di ko jiite mi ngi san mi ngi sampoo ci 2015 mois de août ci bésu 29 août ñu koy taxawal nous doxal mën na wax ni tourba président Macky Sall mo ci yok libéral parce que man sama mouvement alliance libérale pour la république le tudd moom ma alliance pour la république man maa ci moom libéral dama tok ak ay nit ñu nekk ay responsable politique wala ñu jàppale président Macky Sall man bi may dem référendaire dama ne je suis libéral mais je vote pour la libération de notre frère Karim Wade pourquoi moom parce que dama lay wax nii ànd ak Macky Sall du tee ma ko dëgg ànd ak Macky Sall du tax may wax dëgg man doomu libéral la suma papa libéral la ma ànd ak ma Macky Sall nekk libéral ñu dem ba certain moment mu sañ parti ma ànd ak moom mais sukkandiku la tey yóbbaale say om

Habib est un homme de social. Amim Habib tu as beaucoup fait Dans mon école, tu as dafa lay pourquoi parce que tu n'as rien d'un politicien nit nga koo xam ne da ngay def rek te yàlla tax li ngay def lépp xamoo mais Dieu jëf jëf joo gis am na pay mais yàlla na la yàlla fay sa jëf ji damay lancer aussi un appel au président de la république du Sénégal son excellence le président Macky Sall bi nga xam ni moom la ñu bokk ñun ñëpp

yalla ngi lay nuyu te gisuma ko Habib xam nga lu ñu boole ngor ak jom ji ma gis ci yow moi je demande jamais parce que nit la koo xam ni am na léegi ku sant Kouyaté ku taxaw di ko wax man samay valeur lépp lu ma sama jom mayul soxlawuma ko je suis né dans une famille maanaam très diminué mais je me suis bâti tout seul

ci mom la il ne m'a jamais dit Dieng buy wax ak man sax nan ma gram ki limo limo am gëm na ni Habib mënoo ñak dara damay dégg ñu naan borom ndey ju baax bu dafa naan àll mais je te dis encore une fois parti bi ñu Il y a trop d'obstacles. mais je te dis que man may nek ci kanam dina le dindil obstacle parce que je suis prêt pour même joxe suma bakkan pour nga jàll ça je vous le dis sur le son excellence le président Macky Sall bilan rek doy kon yakarna ni ak li nga xamni nga les mouvements ñu koy def yow Habib moi je dis que ni Habib est national Habib Yangi def Yangi Dimbele Yangi di dimbali ñuy feebar yaa ngi joxe yoo xam ne sax ni ñu xam ñu ko di fëgg nit bàyyi ba xaadi ko di nga fëgg ko ci sutura jàppale ko avec li ngay def ci jumaa yi li ngay def ci jàkk yi li ngay def ci école yi église yi Habib moi je te parle très sérieusement am na léegi suma benn grand frère bu taxaw génne benn carnet de santé yàlla na yàlla fay lii duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li encore une fois damay delluwaat cant ak ngërëm bi ko jëmalee képp koo xam ne déplacé nga pour ñëw ci yëf yi comme su ñu ko waxee luy 16 yomb na lool waaye amee nit jafe na lool fii ni amul kenn ko xamne ne dañ laa jox juróomi dërëm pour nga ñew fi da nga ñew ñëw ci gëm li ngay def wala gëm ñi tax ñu nga wara déplacer déplacé kon encore une fois ci sama tour ak tour Habib Dieng ak tour Assou ak tour Cheikh Abdoulaye Guèye ak tour képp ku fi nek ak ñëpp ak mon ami et frère euh, Ali Mbaye parce que damay wax naan lëg bu lekkee olof na ko jërëma cooñ xam nga lu tax ma wax loolu dama di wax dama di wax dama di wax dama di wax pourquoi ma wax loolu ci Ali Mbaye Ablaye danga may may parce que Adi Mbaye dafa di kenn ko xamni man ak mom ëpp na 15 ans ñu sékk terrain politique bi di jakarlo di jëflante ma xam li mu man ma ñëw fekk ko ci Habib Niang xam nga lan mooy doomu aadama valeur valeur moy doomu moy doomu aadama bu fekkoon ni dafa siis wala mu am nu mu mel mu ne ko moy dur wacc Ali je te dis que ni man ak yow yoon bi gudd na inshallah wara bi rabi ñu dajé ma ngi nuyu aussi sama jigéen damay gàttal sama jigen ko xamni sama partenaire la won ñoo doon ànd di politique Euh, je veux nommer Virginie tey moom moo nekk secrétaire général ànd Suxali Thiès sama jigéen la ah fi may tëjee mooy daj dëgg ji parce que toujours euh, ah non maa ngi tëjee ci sama secretaire général Lat Koumba Dia infatigable. parce que mën naa wax ni mouvement bi man du ci doxal dara lépp moom moo koy doxal man lii rek laay def bés bu jot rek wax. Lat maa ngi lay gërëm di la euh, ñu bañ a ñu parce que wax dëgg yàlla jibi jibi euh, jibi tu mon frère. jibi tu mon frère. Euh, maa ngi lay gërëm bu baax kon di gërëm it sama vice présidente Caba Ndoye bi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñooy liggéey lépp Caba yow démb laa la bind benn message public publié ko ne la Mali Maram Ndoye yow xam nga ni góor nga géer nga te nga jërë ngeen jëf asalaamualeykum waa Jaxaaw maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam samay nuyoo maa ngi ko jëmale nuyoo maa ngi jëmale ci suñu kilifa diine yu baax yi teew fii ndax nee nañu jeetaay bu rafetee mag yaa ci nekk kon suñu kilifa diine yi yal na leen yàlla taxawu ni ngeen ñuy taxawoo bu baax a baax bàyyi leen ci suñu kanam ngeen ñuy gunge bu baax su ma ci noppee maa ngi nuyu suñu président mouvement Andu Suxali Thiès di monsieur Habib Niang yal na yàlla yokku ay wëram te may ko wér Sou machi nopè mangin nou yu che kwa te di Do moun dayou abib nigen ko wakè Moun mi te di prezidant mouvman er Te nedina nyou djapale abib Bok ak moun nyou ligè Ndak nyou boko djemoukè Sou nyou djemoukè mwen fan te Mwen djapale prezidant maki sal Kon che te yu yu ley de longerem bi yow mii di ne tey di nga jël sa mouvement boole ko ak mouvement Habib pour ngeen ñëw bokk benn jëmukaay di liggéey kon ceey dalal nañ la ci mouvement bi dalal jàmm te yal nañu yàlla taxawu ba fete ñu fi la waroon fete ñun ñëpp bu ma fa fete dinaa nuyu sama yaay di mère Astou Guissé vraiment mama merci beaucoup ci kóllëre bi nga am yaa ngi ñuy taxawu bu baax a baax Ali mbay aussi suñu frère maa ngi lay nuyu di la gërëm waxtu bi def ñoo xaw a tënk waaye waa population jaxaw ñaari kàddu rekk laa leen di wax am na mag ji doon wax ne démb wax naa ko di nga am nit ñoo xam ne dañuy ñëw pour nga servir leen dina am nit ñoo xam ne dañuy ñëw servir leen yéen mënuma ko wax ci wolof maanaam Il y a un serviteur et quelqu'un qui veut venir se servir. Mais Habib, c'est quelqu'un qui est un serviteur de la population de Thiès. Donc moi, je dis à la population de Djahaou, Habib y a ko waxal seen bopp seen kilifa bu Habib la valorisation des femmes Habib il le programme Moi e PSE bi Macky au Sénégal Habib mu ngi la CMU c'est-à-dire la maladie couverture maladie universelle te loolu yéen a ko seedeel sen bop ndax am na léegi ko fi cédé, génnee na di wanene, ne ku la jox ay pass 1500 2000 nit diapale jàppalewu la mais jël carnet jox la ko ne la demal faju fajal la at boobu kon da ngeen a war a gërëm tey Habib kooku moo ñëw pour servir leen mais ñëwul pour ngeen servir ko leen rek laa leen di ñaan la population de Diakhao Habib yaakaar naa ne wax ngeen ko ci seen wax desalute leen dara lan ngeen ko war a desal mooy le soir du 24 février 2019 ngeen won ko ne ñun suñu ngor mu ngi ni jappalé nañ la ndax Macky Sall gagné na ci quartier Jahaw à 100 bu boobaa bu tëddee dina nelaw té dina xamné ne lépp lu mu defoon ci Jahaw nekkul ay naxé mbaay kon nag loolu laa leen di dénk la population de Diakhao di leen gërëm te di leen sant te di leen ñaanal yàlla yàlla jàppale ñu bañu ñu am ndam. bismilaahi rahmaani rahiim tey dañuy sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñii rek lañ doon ñaan ndax ñun danoo amul kenn ku dul Habib Niang Habib Niang moo ñu jaral lii Habib Niang mooy mbayoo di Fuuta. Mbaye Wade di foto mooy jàmbaari foto. lii mu def Fouta la ko njëkk ci dëkk ba mu dëkk doog a ñëw Thiès gii bi mu ñëwee Thiès nag dafa ne waa Jaxaaw yéen a ma ñor waa Thiès ma ñor président de la république tànn ko andi ko teg ko fi mu samp mouvement bi mouvement bi amagul cinq ans cinq mois wala nga xam ci la yem mais macha abi moo neex bëgg koo ne abim ñaar rek. day yàkkamtee ndaw ñoo fekk si la mën nañoo lee ay chaise mais kenn mënu lee ay nit tey macha allah ñëpp ngi bàyyi seen kër ñëw fii ngir yàlla jëmi Habib Niang Habib Niang ndek ci groupement des femmes yi macha allah suñu koñ bi ba ba juddoo ba léegi yàgg na mais suñu koñ bii jigéen ñi mosuñoo àndandoo di liggéey te tey Habib Niang moo ñu def tey ba tey ñoo ci ay millions jigéen ñaa ngi toog Habib Niang mi ngi ci poste yi. moo investir def 2 millions 800 mille def ko ci poste de sant bi jigéen ñaa ngi faju ak seenu njaboot kooku Abdou ñaar ku fi indi musuñu koo am Habib Niang moo nekk ci école yi macha allah macha allah 2000 bëri bu fi nekkee lim dañu lim mais Habib daal dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ña ngi liggéey liggéey ci biir Sénégal gi yàlla na ko yeggale mi ngi topp nag ci réalisation yi nga xam ne moom la Macky Sall def liñ ñu ko wax feeñ loolay waxu dëgg maa ngi gërëm nag kee di sama frère. di sama ñu bokk lépp ndax mu mënoon naa ko wax problème mu Habib mu du ko def mais dafa d'accord accepté ndax gisul baax li muy def mu jël ay mouvement mépp ñu fa yéene ànd ak moom topp ci ginnaaw Habib Niang loolu borom xol bu baax rek moo mën loolu ndax bu xol bu baax moo mën a nangul boromam lu baax ba tey ñu def journée bii di gërëm Cheikh Ablaye Gueye mënuñu ko fay. sag la ci jaxaaw fierté la ci biir jaxaaw macha allah gay yow baax ngay wax ci nit ñi ci la nekk ndax tey bu ñu ñemee fii ci koñ bi yàlla ak sa bakkan a tax di nga boole di ñu encadré di ñu ñaanal bàyyi woon nga politique toog abim ñaa moo tax nga dellusiwaat ci politique ñu ngi lay sant di la gërëm di sant waa koñ bi di sant Ali mbay mi nga xam c'est mon frère ba may soog a jóg Ali laa njëkk a àndal mais macha allah waruma sant naa ko di sant Pa Gaye di sant Gora di sant Acca kulum da ngay juum mais mouvement bi ñëpp ma teg place jël ma nag ma ciy mag ni ñu teg ma ni seen yaay ñi ma Habib def rek la ma ñëpp def. di leen jox seen wàccuwaay di leen remercier bu baax di nuyu le président Habib Niang mouvement ànd suxali Thiès. maa nuyu aussi kilifa diine yi fi tok di len ziar bu baax baax di nuyu suñu mouvement bi tuddu Alir bo xam ne créé nañ ko depuis ça fait des années mais suñu président di Thie kuyaté donc ñun dañ ñëw uniquement aujourd'hui pour feddale suñu colère sax laay wax feddale suñu colère avec le président Habib pour réélire Macky Sall 2019 Habib Niang nag li mu def si biir du ma ko wax parce que damay bañ a répété ndax ñi fi jaar ñëpp wax nañ ñëpp donc ce que wax rek dire, man sama principal mooy accès sur les pièces d'identité et les cartes électeurs surtout ndax sais que si ne avez amul carte d'identité une carte électeur pour voter pour réélire Macky Sall il faut obligatoirement voter donc man li may wax dama c'est accès uniquement sur les pièces d'identité et les cartes électeurs dama vous di ñaax ñi élection législative yi ñi jotul carte ñu dem une carte

ah sama sama mouvement di ali sama président Thie Kouyaté sama secretaire général Lat Babacar Dia maa ngi gërëm tam sama waa kër waa kër maam El foofu laa dëkk maa ngi leen di gërëm bu baax di leen gërëm yéen ñëpp waa Thiès wasalaam. Ndiaye mi ngi def liggéey bu stade Thiès groupement yi ci poste yi comme ni ko Obidien defee.

xam luñ bëgg ak fu ñuy def la dama ñaa aussi comme ni seur waxee aussi nañ teel sama carte électeur amul sens nañu suñu carte électeur disposi ji voté jox président tour euh, premier tour bi moom am vingt cinq soixante cinq pour cent gagné premier tour merci mi maa ngi nuyu fi toog di nuyu tamit autorités yi fi toog li may wax xam naa ne moom du si bëri parce que li ñu war a wax yëpp wax nañ ko ba pare te affaire moom leer na ba pare li fi amoon moom cees doot ñu nangu mu di fi am muy di lan tay la dëkk bi Thiès moom doomu cees moo koy liggéey te comme doomu Thiès a jug pour liggéey ñu ñëpp ci ànd muy maire yi jeunes yi lépp ci biir ñun étudiants yi ñu ngi ci ginnaaw Habib ñaar jaareel ko sunu yaay ji merci beaucoup loolu laa ni woon dinaa leen ko yeggee ñu ngi ci ginnaaw ànd sukkali Thiès à cent pour cent mu étudiants jaay nek bi Thiès di étudiants yi nekk biir Dakar kon nak bis ni ki tey jéggal nañ suñu cadeau gi yëpp suñu mama Astou Guissé bis ni kay ànd ak suñu leader Habib nya ci kaw rek Macky 2019 inshallah allah. mu ngi ni yaa ngi dëkk boo feebaree nga dem faju ji man mosuma top kenn politicien du ma top mais ki la jox li jox na la lu nek yaa ngi dëkk ñaar témer ak ñen témer yorul kenn. lii at bu nekk ba at mën naa dem faju ji lu ma yàlla may ma jóg si ñu sama bëccëg mais ay ñeent téeméer ay juróomi téeméer yorul nit man dugguma ci loolu abi Niang mi mosuma ko gis mu ngi nii tey laa ko mos a gis wóor na yàlla mais tey lépp lu ma mën a am jox naa ko ko sama carte moom laa ko jox dama bëgg ngeen nekk nit naxaate bi moo jeex yaa ngi dégg nit ku nekk boo nekkee mag nekk sa kër mosoo liggéey mosoo dem fenn boo gisee ku la mën a jox liggéey nga dem jàpp ci bu ngay def ni ñëpp di dem dimbali seen kër boo amee saaku ceeb nga yóbbu seen kër mais juróomi téeméer yóbbuwul kenn ñaari fan ñett tey jii moo joxoon cent cinquante mille kon jeex na bu yàgg mais lii depuis décembre ba léegi ba déwén dama ciy faju